alors Forza lu muy xaar moment bii gis naa ni euh, keroog yàgg nees nees bañ ku ñu wax Forza mu daw lu tax. waaw parce que li ñuy xaar ñu leen xaar la ñu xam rek moo tax ñuy wiiri wiiri. xam nañ ko. bu baax. alors lan ngay wax amateurs yi lay seetaan. waaw ma leen di wax ne ñu ñaanal ma rek yàlla may ma combat ndax namm naa sama xaftaan bi tooy parce que ngay liggéey te amoo combat neexul. combat bi bu ma amee placé dina ma métti trop mais aussi maa ngi am yaakaar comme que gars yi ñu ngi waxtaan ak man boobu ba léegi problème adversaire moo fi xaw a am rek aussi ñu ngi am yaakaar yàlla nañ may nañ may combat ngi pare ku ñëw ñu